ASTC BTP di yëngu ci wàllum construction et rénovation bâtiment maanaam tabax kër ba mu yànji ci tàmbali bi ba keroog mu yegg waa ASTC BTP ay jàmbaar lañ ci tabax nag ci anam yi nu méngoog jamono mu dëgër waaye itam taaru lool. lu ñu itam wàllum rénovation yeesalaat ba mu gën a méngoog jamono sa kër itam dañ ciy yëngu lépp lu ñu di defar ay complexe industriel itam dañ ciy yëngu. lu ñu itam ay travaux publics moo xam di defar ay voirie yi ba ci kon ay espace vert dañ ciy yëngu ñoom nag liggéey bi am nañ ci espèce am nañ ci expérience ndax ëpp na ñeenti at mën na ci nekk ak léegi dañuy itam yëngu ci wàllum étude de procès gunge ci wàllum ay conseiller ci xel koo xam ne da ngaa du kon ci procès ci tabax la ca aju lépp ba ci kon début bi nga xam ne moo nga ci def yëpp kon ñu mën la cee gunge dañuy itam yëngu ci defar ay plan moo xam ay plan 2 ba ci ay plan 3D waaye itam di lié ak jaay lépp lu ñeel euh, matériel de construction ñoom nag seenu bàkk moo di tabaxal sa dëkkuwaay ñoo ngi fépp ci réewum Sénégal seen ay bureau nag mi ngi ci Dakar ak ci Touba ca Dakar ma nga ca Parcelles Assainies rond point 26 ca Touba ñu ngi ci 28 ak ca Gare bu Ndaw ci magasin Kawsara Fall seen numéro di 75 654 54 75 wala 70 762 15 95 adresse email di contact arobase aftcbtp point com am nañ site internet di www point aftcbtp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 yéen mbokk Mouhalim info international TV yi déglu du ñu topp ci saa su ne eh, ñu leen di indil ay xabaar ay eh, nouvelle ak ay télégramme eh, ay axbaar ak barqiyaat ci li nga xamante ne ni mooy nouvelle évolution yi nga xam ne am na ci proche ak Moyen-Orient mu nekk entre Israël ak Amérique ak ñi ànd ñoom. ci côté euh, entre ñoom ak Hamas muy Palestine ak euh, Liban ak euh, Yémen ak Irak ak Syrie ak Iran donc mu nekk loo xam ne bés bu nekk rek muy gën a am ay développement yu doy waar moo ci titre yi nag takkar naa seen trop parce que ndax flux d'information yi ñuy jotandoo dafay gaaw trop moo tax ñu seggal leen ci nga xam ne am na solo trop pour ñu xam ko muy ci gën a fës mooy ne xam ngeen démb euh, kii di Hezbollah dafa bett Israël waaye aussi ak ameriga mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ci maanaam benn drone boo xam ne d'espionnage la bu mu sànni ci asamaanu Haïfa ak euh, euh, muy Israël nga xam ne dem na mën a filmer photographier place yi nga xam ne yëpp quartier yi gën a fës foofu euh, zone industrielle yi fi usines yi nekk dëkkuwaay yi camp militaire yi euh, li nga xamante ne ni moom mooy aussi euh, point stratégie yëpp économique militaire politique de manière générale donc mu nekk loo xam ne lu doy waar la en pleine guerre Euh, sa sa sa maanaam ki nga xamante ne mooy sa ennemi mën a def loolu won la yow ne gis nga fii mooy quartier sàngam fii mooy quartier sàngam bitugu sàngam a ngi nii garage sàngam a ngi nii usine sàngam a ngi nii te yow yaakaaroo woon ne xam na ko te xam ngeen guerre topographie def ci am solo trop trop maanaam ni nga xam ne noonu la position géographique yi maanaam site yi ak cible stratégique yi nga xamante ne moom la ñuy song loolu nag jaaxal na leen trop loolu muy indi laaj boo xam ne dañu naan ana li ñuy wax ne Amérique am na ko ci li nga xam ne déployé na ko ay armement waaye aussi ana li koy tubaab yi di dimbalee ñoom ñëpp waaye boo xoolee li nekk nii entre ñoom ak Russie ak euh, Ukraine rek sa xel war na dal ne ñoom wax lañu gën a mën ko ak xuuxalaate donc moo tax tey li ci terrain bi mu ngi wane dëgg beneen bi mooy bilan réel bi nga xam ne euh, yenn journaux yi euh, ak sites yi joxe nañ ko mooy bilan réel bi nga xam ne moom la Israël di nëbb parce que xam ngeen en matière de guerre du journalistes yi rek ñooy topp xabaar yi service de renseignement yi yenn services yi dañu koy topp pour xam surtout ci wàllu économie ci wàllu politique wàllu stratégie donc dafa bari ay centres yoo xam ne dañuy bàyyi xel ci loolu donc moo tax yooyu dinañ leen indil bilan yooyu donc mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la euh, bi ci jiitu nag pour di ko muy télégramme bu ñu jot léegi mooy ne euh, euh, ki nga xam ne mooy Israël dafa wone léegi de genre comme vendetta mooy maanaam def portrait ayatullah yi gën a mag ci ci ci schisme maanaam ñi ànd ak waa ahlul beyt alayhimu salaam muy seeni sëriñ daf ko def portrait def ko ci see li nga xam ne moom mooy télévision yi Israël ne ñii dañu leen war a rey waaw ñii dañu leen war a rey loolu dafa nekk loo xam ne lu grave grave grave loo xam ne c'est un fait boo xamante ne ni sans précédent boo xam ne mën na indi loo xam ne ci yëbbu mag a mag a mag a mag mag ci àdduna bi na kon mesurer rek comme ni ma waxoon démb bu doon ci ñi nga xam ne fii ci Sénégal comme ñoom la ñuy wax ñu gën a comprendre situation bi donc loolu nag indi na levée de bouclier maanaam ñëpp jóg nañu waaw ci monde bi yëpp fépp foo xam ne chia euh, en particulier musulman yëpp mais en particulier chia yi nga xam ne ñoom ci ñooñu la ñu topp gis ngeen à chaque fois y a vingt cinq euh, euh, millions de musulmans chiites yoo xam ne dañuy dem daje Karbala pour di commémorer Ashura loolu day war ne ferveur boobu engagement bu détermination boobu ñooñu seen symbole seeni représentation boo ko laalee ah dana xaw a gën a doy waar te dina nekk lu incontrôlable donc dootoo day génn tout ce qui est li ngi xamante ne ni moom mooy ces jeux géostratégiques géopolitique ak yooyu dafay mujj gën a fës dem nag ci guerre interreligieuse boo xamante ne ni euh, euh, euh, li koy taal mooy ne dañoo génn li nga xam ne mooy cible politique yi dugg ci li nga xamante ne ni mooy yu religieux yi donc loolu mu nekk loo xam ne lu garaaw la tey ba Iran ci jëmu boppam euh, ministère des affaires étrangères am ci télévision yi euh, euh, génn na wax ne loolu insolence la maanaam lu ñaaw la loo xamante ne ni moom la sioniste di wax mooy dem bay na ay sëriñ yoo xamante ne ni ñoom seen yoon nekkul ci mbir mi sëriñ foo ko gis jàmm day woote jàmm du woote ay dafay nekk ci jàmm guddi ak bëccëg nga ne ñooñu nañ leen rey kooku dafa grave surtout ku toll ni ayatullah ali Sistani al Husseini nga xamante ne ni presque moom euh, à peu près plus de deux cent millions ci chiites yi moom mooy seen sëriñ mu nekk ku am doole koo xamante ne ni doo dem ci communauté chiite lu dul moo fa ëppale bi donc loolu mu nekk koo xam ne tey précédent bu dangereux boo xam ne boo ko laalee mën na indi jëye boo xamante ne ni kenn xamul lu mu toll moo tax waa Irak ci seen jëmu bopp ñi ngi manifester di am lu leen metti lool Netanyahu ak militaires yi amuñu dara lu ñuy viser lu dul ay civil ne dañ leen di rey ah ñu ngi leen di xaal si sànni nag moom aussi ak ki nga xam ne mooy seyt Xamanaay ak euh, Hassan Nasrallah ak eh, Abdul Malik al Xuusi bi nekk eh, Yemen ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk eh, Syrie ñooñu ñëpp ñi ngi jóge ci imam Zeynul Abidin alayhi salaam muy imam Zeynul mooy doomu imam Hussein ak di doom ci imam Hussein imam Hussein mooy doomu Fatima ak Ali ibn Abi Talib di sët ci rasulillahi sallallahu taala alayhi wa donc loolu mu nekk fee boo xamante ne bu dangereux la boo xam ne Israël war na moytu waaye aussi ki nga xam ne moom moom moom moo moo moom mooy euh, kilifaam di États-Unis euh, euh, ak Angleterre mi nga xam ne mooy al aqlul mudabbir parce que yii yëpp Angleterre mooy def conception bi mise en œuvre bi nekk Amérique bras séculier bi moom mooy Israël donc mu nekk loo xamante ne ni Euh, ci seen euh, euh, station de li ñu tuddee complosphère nga xamante ne fu ñu toog rek ñi ngi def seeni i complot nañu bàyyi xel ci loolu parce que bu dee Amérique dof na moom ñam na ci Irak également li ko jiitu Angleterre dominé woon na Irak waaye gis na lu ko ci fekk donc mu nekk loo xam ne lu doy waar donc moo tax ci beneen xibaar ki nga xam ne mooy le ministre sioniste des finance mooy Smotrich euh, Beit Israël Beit Israël euh, Smotrich nee na moom dafa bëgg état juif maanaam réew moo xam ne réewu juif la boo xam ne day boole Jordanie boole Liban boole ay suuf ci Égypte boole Syrie ak Irak ak Arabie saoudite waaw nee na ñoom ci seen jëmm bopp ñi nga xam ne ñooy kàngam yi di boroomi xam-xam yahudi ñoom nee nañu Jérusalem boobu euh, euh, euh, loolu la ñu xalaat te moom loolu la bëgg a jëf moo tax Jérusalem ci jëm jëmu boppam dafa war a continuer ba ci Damas waaw mu nga xamante ne mooy Beytul Maqdis donc loolu nag mu nekk lu am am am solo ci ci ci kàddu moo tax ci journal américain ci The Intercept nee na États-Unis depuis le 7 octobre 2023 maanaam au moins moins dépensé na vingt deux milliards soixante treize milliards euh, soixante de dollars en aide militaire ak sécuritaire ci Israël gis ngeen donc xayma yi ñu doon xayma naan ay seize millions quatorze milliards fii non non Intercept wax na ne Amérique dimbale na Israël yu lu toll ci vingt deux milliards soixante seize millions de dollars yoo xam ne daf ko dimbali mu nekk aide militaire ak sécuritaire. aide militaire mooy matériel yi ak yooyu nga xamante ne ni moom moo ciy jëm sécuritaire mooy jëm ci wàllu di ko jox ay renseignement euh, euh, euh, di ko jàppale léeg bu amee ay ay plan yu ñu war a defar contrôle commandement ak yeneen yu demee noonu ba tey journal boobu nee na expédition yi nga xamante ne ni ci armement américaine la yu dem Israël maanaam yi nga xam ne yónnee nañ ko Israël muy ci bateau muy ci avion muy ci yeneen kii toll na ci cinquante sept mille obus d'artillerie yoo xamante ne Israël jot na ko ak ñaata trente six mille cartouches d'artillerie ak vingt mille fusils yoo xamante ne M4 A1 ak treize mille neuf cent quatre vingt et un missiles Amérique jox na ko Israël ci ci at maanaam buñ ko do buñ ko ma wax ko ci cinquante sept mille obus d'artillerie loolu mooy euh, fukki juróom juróom juróom fukki junni ak juróom-ñaar yoo xamante ne ni ay obus la maanaam genre mbell la yoo xam ne dañu koy tiire ba char yi ak yu demee noonu ak ay cartouches yoo xam ne fusil la mooy yu ñuy tiire comme mitrailleurs yi cartouche ay bal trente six mille euh, cartouches yoo xamante ne d'artillerie la toujours mooy pour pour euh, euh, char yeeg ak yeneen yu demee noonu ci fusil yi mooy vingt mille yoo xamante ne M4A1 la ak Euh, euh, euh, quatre-vingt-un missile antichar maanaam fukki junni ak ñett ak juróom ñeent ak lu top ci ay missile donc moo tax mu nekk loo xam ne ñu doy waar la loo donc gis nga ni guerre bi au fait Israël Amérique moom moo koy jiite waaw li ñu lay waxal mi yëpp ay foofu jeu la parce que bu leen fàtte ne Hollywood foofu la nekk États-Unis donc xam nañ bu baax mise en scène nan nañ koy defee donc loolu la waaye euh, euh, euh, nekk na loo xam ne lu doy waar la donc bu Amérique ne moom yëgul te mooy joxe alal mooy joxe arm moom mooy diriger xaa guerre bi mooy joxe plan yi mooy joxe renseignement mooy chefu Israël moom bu ne xamul wala jàmm la bëgg te muy continuer di def loolu ba pare di ko damoo di ko génne di ko wax moo lay won ne ñi parewuñu pour jàmm ba Euh, euh, ñi nga xamante ne ni démb nag euh, ci fi nga xam ne moom mooy Liban def nañu benn prouesse technologique militaire bu bu bu mag a mag parce que dañoo yónni seeni drone ñu dem fi nga xam ne moom mooy xayfa ñu ak Karmaïl moom mooy zone xayfa dugg foofu filme ay ay ay ay ay waxtu li nga xamante ne ni moom mooy emplacement yi muy euh, li nga xam ne site militaire yi base yi ak euh, site vito yi petrolier industriel yi nga xamante ne moo nekk nga xam ne usines yeeg fu ñu dëkk ak armes yeeg euh, lépp loo xamante ne dafa nekk ci Gush Daan Gush Daan mooy ci Tel Aviv ak yooyu yëpp aussi dem nañ ba foofu mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la parce que amul loo xam ne rek war nañ ko mën a cibler muy centre stratégique boo xam ne secret la woon te hudhud ci jëmu boppam euh, euh, euh, génnewu ko donc mu nekk moom la ñu tudde ci tubaab laa hip laa hip fascier genre njanaaw la boo xam ne moom la yonent yàlla Suleymaan doon yónni pour mu di ko jox ay xabaar waaw xam ngeen histoire bi diggante moom ak laareen Balqis donc loolu nag nekk na lu lu rëy loo xam ne tey dafa wone dafa jox encore Hezbollah sur le plateau euh, euh, mooy li nga xamante ne ni ligne de défense yi maanaam naka la nekkee yu daan ak Tel Aviv plan de défense aérienne yëpp ak installation militaire yëpp ak zone industrielle yëpp ci Goujdan ak ci fi nga xam ne mooy xayfa tey Hezbollah amaat na ko pour won ko ne man maa la man di di ngeen ñu dégg euh, fu ñu leen dul déggee ñu ngi teg suñu bët foo xam ne yéen du ngeen ñu gis te ñu ngeeg yoo xam ne man lañ leen dóor te suñu loxo te te du ngeen ko du ngeen ko maanaam du ngeen ko mën a euh, pare loolu la cheikh bi nga xam ne moo topp tey ci Hassan Nasrallah muy cheikh Naim Qasim waxoon bërki démb gis nga moo ngi nekk nii tey mu ngi leen koy firndeel du nekk rek ay waxu kese ak ay menaces loolu nag site yooyu euh, moom Hudhud euh, di drone boobu euh, wane na zone industrielle bu Kiryat Nahum raffinerie bu Haïfa ak zone industrielle bu Kiryat Atta ak usine kii Nicher ak yi nga xam ne mooy produire wàllu construction ak base bu Michar ak réseau de communication ak li nga xamante ne ni moom moo nekk ci réseau de communication bi nga xam ne moo nekk entre le commandement région nord ak le ministère de la guerre maanaam défense bu Israël xam nga loolu c'est une prouesse parce que commandement boobu ak le ministère de la défense nga mën a dem ba mën situer fi nga xam ne mooy site bi loolu gàcce ngaalaama ci Hezbollah loolu nag démb moom Israël ci jëmu boppam nelawuñu ndax loolu parce que fi mu nekk nii suuratul ba dégg ngeen li nga xam ne moom mooy américains les grands journaux ñu ngi commencé di wax ne Israël dafa bett nit ñi nekkatul lieu bu sûr mënatul a la sécurité euh, de ses populations euh, donc euh, nekkatul foo xam ne jëmukaay la donc tubaab yi bu ñu demee ba di ko wax loolu nekk na lu grave surtout nag image aérienne bi ñu jël ci base Mishmara ha Carmel bi nga xam ne mooy base de défense aérienne bi nga xam ne moo yor lépp luy njanaaw ci wàllu avion ci wàllu fafal naaw nga xam ne mën na yéeg ci kaw asamaan ci wàllu xayfa boobu boobu base muy mishram euh, ha Carmel moom moo ko yor boobu nag base ci jëm boppam te nga xam ne moo nekk xayfa ñoom dañ ko filmer sax photographier ko filmer ba mu mel ni comme Google Earth tey boo ko doon melal ni mu mel moo gën a leer sax que Google Earth donc mu nekk loo xamante ne ni euh, euh, lu doy waaral ba wone li nga xam ne mooy installation wu radar yi ak làmp ma rampe yi nga xam ne mooy doom de fer bi nga xam ne moom la ñu ne moom mooy lu dugg moo lay moo lay euh, maanaam xool attaqué la <laughs> moom boobu moom fekk mi ngi nelaw parce que da doon sieste xam ngeen ne moom it sonn trop trop trop trop trop trop trop waaw mais xam naa ne comme moom amul droit de euh, de de de riposte de de de de riposter euh, waaye bu mënoon wax doom bi dina ne sonal ngeen ma yéen waa Israël. donc ak ci sale de commandement yi nga xamante ne ni militaire ak stationnement wu soldat yëpp hudhud euh, démb daf ko génne dem nañu ba sax hudhud démb dafa génne complexe Yitzhak Rabin bu université l'univ ak université de Haïfa nga xam ne yooyu zone yu sensible ak réseau de communication militaire entre ñoom yaa ngi dégg donc yooyu yëpp ci école mu ak station télé yi mooy yi nga xamante ni mooy yéeg entre montagne ak montagne nit ñi di ci yéeg pour di dem ci beneen montagne bi te duñu aw ci suuf ak complex commercial yi nga xamante ne ni bu Grand Carillon ak réseau de tunnel moo Carmel yi nga xamante ne ni euh, euh, dañ koy utiliser comme hôpital blindé pendant bu guerre amee yooyu yëpp li nga xam ne mooy hudhud Euh, euh, démb filmé na ko mu nekk nag loo xam ne président bu dangereux pour la sécurité d'Israël waaw parce que ku la mën a def li yéeg la te xamoo fan la jóge ak nu mu def ba ñëw ba dem yoonam génnewaat loolu kooku bu la ne fu ko neex la lay dóor te cheikh bi nga xam ne mooy cheikh Naim Qasim nee na leen ñun fu ñu neex lañ leen di dóor parce que suñu bët àgg na fu seen bët àggul suñuy nopp àgg na fi nga xamante ni yéen àggu leen fa parce que malgré li nga xam ne moom mooy possibilité technique ak technologie bi nga xam ne Hezbollah am na ko te actuellement même euh, ñi nga xam ne ñooy ci euh, observateurs yi ak les analystes européens même occidentaux ñi ngi naan actuellement Hezbollah moo ëpp doole sur le plan militaire euh, Israël te xam nga loolu man yàgg naa ko wax ci samay chronique mais léeg-léeg booy wax dañu yaakaar ne ak ah, kii taalibe la rek buy daanu fekk xam ko la ñam ko maanaam ki ñam ak ki ki ñamul du benn ki gis ak ku dégg du benn donc loolu mu nekk loo xamante ne ni tey ñi ngi ci am dëgg te li ci kanam toujours rawitu bët image aussi aérienne bu hôpital bu Ben Zion ak base ZEV nga xam ne base de réserve la de défense aérienne nga xam ne mi ngi dépendre directement ci batterie wu front de David ak réseau bi nga xam ne moom moo lié euh, euh, lien militaire ak bu bu bu bu bu euh, Cherniskowski yooyu yëpp daf koo génne mu nekk ay zones yu sensible waaw ba sax la Daawud mooy fronde de David ñoom xamuñu sax fan la nekk moom it comme ni dôme de fer bi moom it noonu lañ ko def mu ne loo xam naa dafa sonn moom it comme ni ko waxee donc loolu mu nekk loo xam ne lu doy waar la moo tax gis na mën nañu gis aussi base Ali Aizar Ali Aizar base la boo xamante ne défense aérienne principale bi nga xam ne mooy responsable bi protéger région wu Haïfa ak ak li ko wër donc loolu aussi beneen problème la waaw li ki nga xam ne yow lañ ko dénk waaw nga nga nga dem ba mu am ñoo xam ne ñu ngi lay surveiller sax yow ba man la filmer dem yóbbu ko ñoom ñëpp dañu waroon a démissionner tey waaw nga xam ne base boobu dafa am radar bu doom de fer bi ma nga fa ak salle de commandement yoo xamante ne euh, euh, BM BMC la ak base Stella Maris nga xam ne base stratégique la de surveillance maritime ci côte nord lépp luy bateau luy war a jóge ci géej gi ak yooyu yëpp moom wala ci jaww ji moom moo ko yor ak système de radar yi nga xamante ni plusieurs étages la moo tax daal démb gis nañ ne hudhud ci jëmu boppam gàccel na ki nga xam ne moom mooy Israël moo tax observateurs yi ne eh loolu nga xam ne ci wàllu expert la ñu en missile ñoom nee nañu euh, li leen jaaxal mooy euh, image yi nga xam ne moom la hudhud wone yu leer naññ na ak benn vitesse extraordinaire boo xamante ne en temps réel boo xam ne entre six cent ak sept cent mètres la par seconde la la doon daw moom euh, drone boobu xam nga kon par par mètre six six six six cent entre six cent ak sept cent mètres par seconde moom la moom la drone boobu di daal mu nekk eh, eh, eh, dafa gaaw donc loolu te malgré que gaawaay bi jël na yëpp loolu lu jaaxal experts yi yeneen experts yi aussi wane nañu ne vidéo yi dafay wane ne Israël amul peut-être euh, euh, maanaam unité de défense aérienne wala ay missile d'interception yoo xam ne mën na intercepter wala euh, maanaam de bombardement yoo xamante ni intense yoo xam ne bu ñu gisee objet non violent la non identifié wala identifié ñu mën ko tirer loolu gis nga experts internationaux yi ci wàllu géo euh, kii stratégie militaire ñoom ñoo wax loolu beneen bi yeneen am beneen yeneen experts yi ñoom day nee nañu am nañu seen ragal lool comme gannaaw bi nga xam ne Hezbollah dem na ba mën a def lii en temps de guerre nga xam ne dañoo déployer force yëpp ñoom Israël Amérique mbooleem mboolem ñi ànd ak ñoom ñu mën a ñëw ba Israël. Euh, euh, doom euh, maanaam li nga xam ne moom mooy picc bii di hudhud mooy mooy la laa ip fas yi mu mën a dem ba mën a jël loolu loolu day day wane ne tey Israël am na problème parce que fu neexati Hezbollah rek wala ñu ànd ak Hezbollah tey mën nañu aw utiliser ay drone aw foofu parce que gis nañ ne mooy défaut la te ci point faible la ci potentiel bi nga xamante ne ni de dôme de fer wala bi maqlaa Daawud wala bu caat am mooy bu américain bi euh, missile Patriot ak li nga araw araw araw un deux ak trois bu Israël yooyu yëpp dafa échec tey les observateurs les stratèges donc moo tax euh, mu nekk lu am solo ba tax ki nga xam ne mooy Maria Zakharova nga xam ne mooy wax ci turu maanaam euh, ministère des affaires étrangères ci turu Vlad eh, kii Sergei Lavrov nee na malgré que ki nga xam ne mooy Israël mi ngi dóor Hezbollah waaye ñoom bi ñu évaluer waaw ñoom Russie seen service de renseignement yi euh, seen service compétent yi ci wàllu militaire ak yooyu gis nañ ne Hezbollah dafa nekk maanaam milice boo xam ne armée si bu organisé te nag dooleem amu ci dara dara dara lu mu ci perte wala chaîne de commandement maanaam bu bi ni ñu rey Hassan Nasrallah rey commandement yi rey ñeneen euh, loolu yóbbuwu leen ci dara dara dara dara dara waaw wàññiwu leen ci dara dara dara loolu nag mu nekk loo xamante ne ni day confirmer seen maanaam organisation ak euh, méthode bi nga xamante moom la commandement bi am moo tax kii nga xam ne moom mooy euh, Peskov nga xam ne moom moo nekk ci kii nga xam ne moom mooy euh, wax ci porte parole Kremlin moom it lu mel noonu la wax mu nekk loo xam ne lu doy parce que xam ngeen euh, kii di Poutine mus na jox euh, benn maanaam kado boo xam ne en or la ci li nga xam ne mooy char Merkava la ko def mu jassam ndax lu tax parce que en deux 2006 dafa dóor maanaam Hezbollah dafa jël char yooyu mooy tey yi ñu rey tey dinaa ci ñëw daf ko doon toj comme ay nen possible euh, te loolu nag dafay indi promotion ci arme yi nga xam ne ñooy def euh, prouesse yooyu léegi nag ci la ko Poutine euh, yónnee loolu nga xam ne moom mooy médaille boobu en or la mooy benn char boo xam ne Merkava en or mu jox ko ko addiye moo tax toujours lii nga xam ne tey moom mooy lu Houthi def ci base yooyu ak militaire yooyu ak site yi nga xam ne ak yu militaire wala yu économique wala politique wala yu vito foofu ci Israël muy Gush Dan Tel Aviv ak xayfa nekk na loo xamante ne ni lu ama am solo la donc moo tax tey bu ñu gisee Israël tey euh, après un an de guerre dinañ gis ne lépp luy moral dafa chuté moralement waaw dafa chuté moralement deram yàqu na euh, euh, jaratul dara waaw ci ci monde bi koo wax mu ne Israël nga mu ne accam te nag li nga xam ne moom mooy ni image am lépp loo xam ne ci wàllu infrastructure maanaam ni mu ko xam ne moo doon téye Israël muy muy muy ndëgër laayam ci ci foofu yàqu na donc loolu nag Israël ci jëmu boppam ñoom observateur yooyu nga xam ne ci wàllu militaire la ñuy yëngu économique ak yu demee noonu géopolitique géostratégique plutôt Euh, ñoom nee nañu Israël munul jot mën a atteindre militairement nii politiquement li nga xamante ne mooy jubluwaayam mooy euh, gañe Hamas euh, gañe Hezbollah même li nga xam ne moom mooy projet Moyen-Orient kooku Israël munu ci munu ci dara donc loolu nag mu tombanteeg actuellement li nga ki nga xam ne moom mooy le parlement iranien nee na nañu na ñu ngi demander actuellement que seen stratégie nucléaire bu bees bi ñu am euh, nañ ko rendre conforme aux besoins du pays maanaam li nga xam ne Iran daf ko soxla ci wàllu nucléaire nañ ko nañu modifier stratégie bi xam nga doctrine bi mooy aqida askariya bi dañu ne woon kenn du utiliser bombe atomique waaye gis nañ ne euh, fi mu nekk ni ak situation bi parlement bi nee na non nañu changer loolu parce que xam ngeen ne waxoon nañ ne dinañ changer doctrine bi te xam ngeen démb ayatullah Khamenei wax na ki nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, euh, le général Ali Reza Haji Haji Zada nga xam ne moom mooy c'est un général de brigade bu la division aérospatiale du corps des gardiens de la révolution nee na jox naa la ndigal pour bés bu Israël fayoo bëgguma gis batiment bu bu bu ñu rasé wu lu jóg ci kaw suuf dama bëgg lépp mu tolloog suuf bul ñëw nag nga di ma yaat naan ma sëñ bi lan nga wax ndigal gi jox naa la ko ba pare te ndigal jëfe waaw donc euh, euh, euh, te bëgg naa bu loolu amee au moins moins moins trente minutes yi loolu na am maanaam genn wàllu waxtu na fekk Israël maanaam lépp lu fa taxawoon na nekk ci suuf xam ngeen doomu daara nag bu meree kooku moom dafay nekk koo xam ne ku doy waaw nu mu mën a muñee noonu la mën a euh, mere mu nekk loo xam ne lu doy toujours ci xabaar aussi jël nañ rabi rabbin mooy morde xay Fichof moom nga xam ne démb blessé woon nañ ko mu nekkoon kilifa diine bu mag ci ñoom ci hadra ci foofu di Israël mujj na faatu tey mu nekk loo xam ne lu rëy rëy la donc loolu aussi Euh, mu nekk lu lu lu ci ñoom di métti ci ñoom moo tax aussi euh, euh, is ki nga xam ne aussi mooy Hezbollah actuellement mi ngi def jaloore bu mag muy ci Tuufa ci Mays Jabal muy ci Muhayhib ak co ci Maruna Raas ak Labune surtout tey ci suba gi ak Maysa Raas Maysa Jabal ak Mishk Mavav ak Almanara ak kafargela ak almarana ak ak maysal jabal ak rasal naqura ak eh, almushayraf ak eh, qalaa bu blida ak sofet ak eh, maanaam tibériyat tey ak ci xayfa jérusalem amul fu mu bàyyi tey waaw utiliser na fa ay missile yoo xamante ne ni doy waar yoo xam ne tey mi ngi faagaagal Israël parce que waxoon na leen lépp loo xam ne def ngeen ko ci ñun dinañ ko fayu muy ci Gaza Gaza moom fi mu nekk nii am na seexandoo moom mooy ci yàqute moom mooy xayfa euh, donc ak euh, fi nga xam ne mooy karmel te fi mu nekk nii ñoom ci comme zone de commandement bi nga xam ne bu axe de la résistance d'accord nañ ci ne fii di Gush daan mu nga xam ne moo jël Tel Aviv zone yooyu sensible yooyu yëpp na ci bokk te gis nga ñu ngi koy commencé di ko rokkos ak i la muy zone Haïfa Karmiel donc mu nekk loo xam ne euh, euh, euh, lu doy waar la moo tax journal bi ñuy tuddee Yediot Aharonot nee na colonie gu Manara ci yooyu ñu divisé bu nombre de frappe yi mu jot tey ak yeneen ville yooyu nee na amul bu toll noonu depuis ci kii bi waxoon nañ leen ne chaque jour rek sëriñ bi waxoon na leen ko ne chaque jour rek tey dafay gën metti ci yéen moo tax tey ci Liban malgré que dóor yooyu ñu leen di dóor surtout ci Naqoura euh, euh, dóor nañu leen ba mu am nga xam ne lu toll ci soixante solda wàcce nañ leen liggéey tey ak cinq chars yoo xamante ne ni Merkava la xam ngeen char Merkava pour ñu expliquer leen ko mooy char Merkava mi ngi jar cinq virgule un euh, cent millions de dollars maanaam cinq milliards cent millions de dollars lay jar benn waaw boobu nag équipage boobu boo ko boo ko amee da nga gis ne équipage bi mi ngi nekk maanaam quatre chef de char lay nekk muy quatre conducteur bi muy muy cinq chargeur bi muy six ak tireur bi muy sept donc cinq boo ci reyee donc nga rey ci cinq cinq fois cinq vingt cinq la maanaam ci ñoo xam ne tey Eh, Hezbollah ci soldaar yi nga xam ne ñoo doon utiliser char Merkava yi rey nañ leen donc mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar parce que xam ngeen char Merkava te ñoom li ñuy tiire ñoom Hezbollah léeg-léeg dañ ko ay cornette la ñuy jël mooy Russie yi tax euh, Poutine mu jox ko médaille door ci jox ci en or ci euh, def ko euh, char bi mu nekk en or fëgg ko maanaam tëgg ko en or pur massif ba pare jox ko Hassan Nasrallah ñoom liñ leen di dóore gagné mooy ay tandem tandem euh, maanaam ay euh, RPG 7 la xam nga RPG 7 1 2 3 4 ba 7 7 moo gën a performant porte bi 150 mètres la maanaam cadence de tir bi nga xamante ne dafa am dafa euh, maanaam 4 la donc mu nekk loo xam ne lu vitesse initiale bi mu nekk 117 mètres seconde moom lay daw RPG yooyu donc mi ngi euh, jar entre mille ak deux mille dollars unité benn bi nga xool char mi ngi Merkava bi ñu yàq mi ngi jar cinq milliards euh, cinq millions euh, cent mille dollars waaw cinq millions cent mille dollars pas cinq milliards cent mille dollars donc mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la ñooñu tandem bi nag waa jihad islamique ñoom ñoo koy utiliser waaw waaye Hamas ñoom al Yaasin la ñuy utiliser cent cinq ak e, maanaam presque mooy version wu RPG2 e, ak RPG7 donc boobu lance-roquette la anti-char boo xam ne tey boo ko doon xayma entre trois cent ak huit cent dollars la nga xool trois cent boobu wala huit cent dollars mooy yàq Merkava boo xam ne mi ngi jar cinq millions cent mille dollars unité nga gis mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar tegu ci nag aussi waxul rek ay char véhicules yi aussi yi nga xam ne ay blindé lu mel ne nëmër nëmër boo dee xool base châssis bi châssis bi bu char bi presque mooy char Merkava la euh, bu 4 mooy comme yi ñuy yàq nii mu am benn protection bu lourde moom it huit fantassins lay àndal ak trois membres yoo xamante ne d'équipage muy onze gis nga kon boo ci yàqee benn yàq nga onze nit maanaam ci wàllu mitrailleuse am nag mi ngi nekk douze euh, euh, virgule sept millimètres muy maanaam am na six tirs par par minute six tirs par minute lay def mi ngi jar trois millions de dollars boobu aussi li koy yàq mooy lu jar maanaam lance roquette bu trois cent dollars wala bu huit cent dollars wala tandem boo xam ne mi ngi nekk ci antem entre mille ak deux mille dollars l'unité loolu nag xam naa ne loxo yàlla ci jëmu boppam dugal na ko ci loxoom bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax donc actuellement li nga xam ne moo leen di jaaxal moom mooy maanaam euh, euh, euh, li nga xam ne mooy réaction yi nga xam ne moo nekk ci ci ñoom donc mu nekk lu doy tey kii nga xam ne mooy Hezbollah def na ko waaye aussi dinaa ci ñëw ci Hamas ñoom it tey def nañ ci lu bari donc am na ci aussi non seulement sa juróom-benn fukki yi ñu rey mais encore ci bëccëg bi tey nii rek am na ci douze soldats yoo xam ne ñoom it Euh, rey nañ leen ci frontière Liban donc actuellement Hezbollah ci jëmu boppam mu ngi gën a ay dóoram euh, jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa euh, Israël ak ay maanaam missile ak i drone yoo xamante ne ni yu doy waar la te bépp tentative boo xamante ne ni d'infiltration maanaam bëgg dugg ci biir territoire libanais léeg-léeg dañ leen di bàyyi ñu yuuxal ba ñu dugg rek fekk dal na mu nekk benn kamine maanaam piège boo xam ne dañu leen ko euh, euh, tegal fiir donc mu nekk loo xam ne tey euh, lu doy waar la ci ci ñoom te tey actuellement presse bi nga xam ne mooy favorable ak bu bu l'axe de la résistance ñoom ñi ngi génne information yi mais yi nga xam ne mooy occidental ak arab yi ànd ak ñoom nga xam ne c'est les des infos aidés am même relation yi nga xam ne stratégie ak Amérique ak OTAN ñoom bi ñuy génne yooyu bu ñu koy génne sax dañuy ne de koy xaw a maanaam soofantal donc loolu nag mu nekk loo xamante ne ni lu am solo euh, euh, euh, moo tax loolu day wane maanaam ci salle d'opération yi Hezbollah li nga xamante ne ni moom la ñu nekk di def avec dextérité fu ñu joxoñ foofu la loolu mu nekk loo xamante ne day wane seen système de commandement ak de contrôle nga xam ne tey la gën a am doole waaye aussi tey la gën a dëgër comme ni mu nekk woon ci li jiitu parce que xam nga deret bi tuuru rek ci Seyd Hassan euh, euh, ridwanullahi taala alayhi dafay gën a galvaniser nit ñi waaw koo xamante ne dafa bëggoon xeex war ngeen xeex nga ne d'accord war nañu xeex mu périer la nga périer ko waaye nga jékki-jékki euh, nga dem def loo xamante ne waru ci woon bokk kooku daf koy gën a merloo loolu nag mooy li li am moo tax combat yi actuellement sax am na ci yoo xamante ne ni frontal la waaw yoo xamante ne ni dañuy jàkkaarloo te xam nga ñoom ñemewuñu ñemewuñu jàkkaarloo ñoom dañuy dañuy daw moo tax gaa ñi dañu leen di faagaagal actuellement bu baax a baax moo tax division yi nga xamante ne mooy 98 bu IGOS ba fi mu nekk ni sax am na enquête boo xam ne euh, l'armée israélienne mu ngi koy euh, euh, mëne mooy ne ñoom bu bu bu nee nañu Hezbollah dafa disposer ay mitrailleuses yoo xamante kalachnikov la yoo xam ne yu garaaw yu hautement destructrice yu mën a yàq yu garaaw a garaaw yoo xam ne ñu nii de projectiles ki penetre les blindés en céramique donc mu nekk loo xamante ne lu doy waar maanaam arme yi nga xam ne Hezbollah am na ko muy ak kalachnikov ñoo bokk la ñu doon xam bu njëkk ba waaw parce que fu mu laal moom euh, yàq na ko surtout ba ci blindés yi da leen di pénétrer donc mooy li ma leen doon wax ci ne Kalashnikov xam nga Russes ñoo ko defar mais ñoom dañ ko reprendre at muy muy muy muy euh, Iran ak Syrie ak Hezbollah ci seeni industrie defaraat ko te xam ngeen Hezbollah am na léegi ay industrie militaire ci su biir suuf si ay ville industrielles yoo xamante ne ni ci biir suuf si la nekk donc loolu nag ci lay jëlaat di defaraat armement yooyu yooyu jaxase ne leen lool moo tax aussi euh, euh, kii nga xamante ne nii mooy euh, Kispov ci beneen ki bu jot nii léegi muy euh, Dimitri Peskov nga xam ne mooy porte-parole Kremlin bu bu ki nga xam ne mooy euh, Poutine nee na expansion géographique bi nga xam ne moom la commencé am xeex bi ci Moyen-Orient dina am jeexital yu graaw a graaw a graaw a graaw ci li nga xam ne moom mooy ci Moyen-Orient moo tax bilan réel dégâts yi nga xam ne moom la xeex bi def Euh, ci Reuters jëlee nañu ci formation ci Reuters muy agence américaine boo xam ne d'information comme Associated Press ñooy américain yi ñoo ko moom nee ñu ministère des finances bu Israël enregistré na déficit boo xamante ne ni ci budget waaw ci misaanam ci budget wàcc na nga xam ne huit milliards huit millions de dollars de shekel. muy tolloog deux milliards trente quatre million euh, deux milliards trente quatre millions de dollars ci septembre bi ndax dépense yu euh, euh, yaa yu rëy yu élevé maanaam yu kawe yi nga xamante ne ci wàllu financé guerre bi entre Hamas ak Hezbollah indi na ko donc ci septembre bii rek deux milliards trente quatre millions de dollars ba tey ci ministère des finances nee na déficit budget boobu nag général bu gouvernement bi yokku na ci année bi. te boo mooy ci sa ñëw na ci septembre presque toll na ci huit virgule sept waaw gis nga fële nee na huit virgule huit euh, euh, shekel moom fii mu ne huit virgule cinq donc euh, PIB bi ci PIB muy produit bi produit intérieur brutam huit virgule trois pour cent la ci boobu moytuwul ci la ci la am waaw huit virgule trois pour cent ba ci euh, euh, fin wu août bi waaw fin wu août bi effectivement donc ba septembre la bii août la ministère des finance ba tey bu euh, Israël nee na dépense yi nga xam ne ci wàllu guerre bi la jëm nga xam ne mi ngi commencé ci octobre bii ñu génn àgg na ci buñ ko xaymaa octobre bële mi ngi ci cent trois milliards de shekels muy vingt sept milliards trent cinq milliards de dollars yoo xam ne Israël fi mu nekk nii consacré na ko ci guerre bi donc bokkul ak nag presque li ñuy xaymaa ci entre quatre vingt soixante dix soixante quinze milliards yoo xam ne de dollars mooy industrie yi ñu yàq ak problème yi nga xamante ne ni mooy lu am. xam ngeen ne démb aussi comme ñu ngi ci ministère des finances bu Israël Smotrich conseiller bi nga xam ne euh, bu mu ngi woon foofu ak moom ci ministère de des finances de blessé woon nañ ko démb. ba mu mu foofu ci au nord d'Israël donc mu nekk loo xam ne lu doywaar la xam naa looloo ko tax a tey mu ne léegi sax ñun dañoo bëgg lii di euh, Liban Palestine euh, ba Arabie Saoudite euh, Irak Syrie yëpp nekk ci nekk Israël bu mag donc mu nekk loo xam ne lu doywaar moo tax Reuters ci benn agence de Standard and Poor's nee na bu conflit bi yokkoo xeex bi ci Israël ci ci Moyen-Orient dina nekk menace bu mag ci notation souveraine région bi maanaam dëkk yi ko wër muy Israël ak yëpp sur le plan économique euh, dinañu am problème bu mag a mag a mag a mag donc loolu mu nekk loo xam ne lu am solo moo tax ci beneen wàlla euh, xam ngeen ne démb ak bërki démb Israël dañu doon bëgg dugg Liban infiltré wu aw ci FINULT pour dugg parce que xam ngeen ñooñu position yi ñuy taxawee dafay stratégique pour ñu ma parce que dañu ñëw pour atte donc ñëw foofu pour buruxlu comme mënuñoo dugg jàkkaarloog kiw Hizbullah yi ñoom dañoo ñëw bëggoon buruxlu foofu euh, ñu bañ ñu bëgg a dugg léegi nag loolu mu indi problème ak ñoom ba mu am ci ay israéliens yi xam naa ne dañ leen mere tey nag ñu ñëw euh, attaqué foofu waa sunil yi ba blessé ci ñaari nit loolu nag mu nekk lu metti loo xamante ne ni euh, moom la Joseph Borrell nga xamante ne moo yor politique affaires étrangères bu Union européenne nee na bombardement bi nga xam ne Israël mu ngi koy def ci force de maintien de la paix de Nations Unies bi au sud Liban nee na mi ngi jéggiwaat les lignes rouges waxatu sax une ligne rouge mais de de de de ligne rouge Israël warul def loolu loolu la Joseph borel wax wax ne ñoo ngi koy condamné li nga xam ne mooy jëf joob nga xam ne kenn mënu ko nangu te kenn mënu ko justifier parce que aussi dañ leen mere parce que dañ leen wax ne may leen ñu ñu dugg fii pour ñu ñëw dugg ci biir sax ngeen may ñu ñu ñam sax ci suufu Liban pour bu ko defee euh, média occidentaux yi won ñu ko parce que xam ngeen démb rek ci ci Maroune Ras wane nañu ci yenn ci média occidentaux yi ne voilà dugg nañ ba samp fa seen drapeau te du dara du ci dëgg feneen la ñu dem waaw def noonu ci même zone géographique bi waaye du ci biir euh, euh, Liban parce que aussi ay joueurs de film yu mag lañu te xam nañu nu ñuy defe mise en scène moo tax Borrell ci jëmu boppam nee na Union européenne mu ngi maanaam jox soutien plein soutien ci FMINUL nga xam ne mission dañ ko mandaté par le Conseil de sécurité des Nations Unies euh, euh, pour que mu taxawu jàmm foofu ci entre Liban ak israel médias israéliens nag ñoom nee nañu tey lu ñu jot ci ay missiles musuñu koo jot mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la moo tax euh, le ministre de la défense bu euh, euh, bu bu Italie mooy Rome convoqué na tey ambassadeur Israël gannaaw bi nga xam ne visé na soldat yu ONU yooyu ba blessé ci ñenn parce que loolu metti na trop waa Italie ba tax ñu woo ki nga xam ne mooy ambassadeur Israël Israël nekkal leen foofu ca Rome Irlande aussi premier ministre bi. dafa qualifier bombardement boobu nga xam ne Israël daf ko def ci force yu finul nee na loolu dafa nekk loo xam ne lu ñaaw la ah ñoom ñoom ki kaay ma puus rek bu ko defee ma dugg nga may ma ma ma tiire rek jël ay photo boo ko dende dugg naa ci biir Liban rek nga bañ loolu dama leen Israël attaque mu nekk lu doy waar moo tax euh, euh, euh, ki nga xam ne mooy le premier ministre irlandais muy Simon Harris nee man fi ma nekk nii damay maanaam dama am dama am ngàcc gàcce dama am dama am lu ma metti gannaaw bi nga xam ne force israélienne yi ñu ngi euh, bëgg a rey maanaam di tiire ci suñuy sold soldats yi nga xam ne mu ñooy maintien de la paix au au Liban mu nekk donc loo xamante ne ni lu lu lu lu doy waar la moo tax lii nga xamante ne ni moo fa nekk tey nekk na lu grave grave waaye également ci wàllu nag li nga xam ne mooy Palestine mooy tey xasaam ñi ngi xeex xeex yu mag a mag a mag yoo xam ne euh, foofu ci Gaza te ba israéliens yi nee nañu musuñu gis xeex bu mel nii depuis le le huit octobre maanaam 7 octobre 8 mu ne tey gis nañu ci waa xamaas force de résistance Hamas palestinienne doole boo xam ne gëj nañ ko gis depuis ci premier euh, jour de guerre yi tellement que dañu gën a galvaniser wu gën a déterminer donc loolu nag mu nekk lu. am solo ci seede boo xam ne ci sa noonu la jóge mooy wane ne waxluz alayhim na nga am ci ñoom maanaam arder bu leen yërëm donc tey Hamas fexe na ba euh, euh, benn colonne boo xam ne bu infanterie compagnie d'infanterie mécanisée bu Israël duggoon Gaza nga xam ne fukki oto ak ñaar euh, ak camion yoo xam ne dafa chargé ay soldats tendre nañ leen embuscade tey Kamine boo xamante ne ni eh, ci jabaliya ba rey ci ñu bare bare bare bare bari tey donc loolu mu nekk nouvelle boo xam ne bu am solo la loolu nag Hamas ne loolu dafa bokk ci eh, continuité wu embuscade yi nga xam ne ñu ngi leen di préparer parce que jotoon nañu information que ne ñu ci ci ñoom parce que Hamas aussi dafa am ay maanaam ay service de renseignement waaw xam ngeen ne tey ki nga xam ne moom mooy eh, Sinwar Sinwar d'ailleurs moo yore service de renseignement yi yu Hamas tu donc moom militaire la xam na ci ñoo xam ne sax ay espion yi nga xam ne moom moo leen tëral seen bopp moom moo leen tiire waaw nit ku dëgër la waaw donc ñoom Hamas nee nañu tey fexe nañu sax ba wàcce liggéey ñaari char Merkava moment bi may wax ni nag c'était ay ay midi ak yenn ci tàndoom lañu yenn ci engin savage savage ay mine la ay mbel yoo xamante ne ni dañ ko teg yooyu nag yàqal na lu bari tey ñaari char yoo xam ne Merkava wax naa leen Merkava lu muy jar ak tàndoom yi ñaata lay jar donc xasaam ci jëm boppam nee na ñu ngi continuer di xeex ba nga xam ne euh, pour fexe li nga xamante ne ni moom la ñu bëgg du du am parce que suñu peuple moom mi ngi demandé nag pays arabe yi ak pays musulman yi ñu pour que ñu mën a jël ay mesures yoo xamante ne enfin ñoom la ñuy xaar ci ñoom ba lii nga xam ne moom la Israël di def dootul amati waaw te nag xanaa dañu amatul ay jullit parce que man lam yahtam bi umuril muslimina fa laysa minhum képp koo xam ne nag jullit ñi bu ñu amee problème sa yoon nekku ci yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na euh, bokkoo ci ñoom moo tax euh, actuellement li nga xamante ne ni mooy euh, ci Hamas nee nañu ci seen jëmu boppam ñu ngi dóor gaay bu baax ñu terminer nag ci li nga xamante ne ni mooy bilan réel bi nga xam ne moom la non seulement yenn agence yi ci wàllu journalisme wax waaye aussi ci yenn service yi nga xam ne wax naa ko ay ci wàllu renseignement information ak yooyu joxe nañu ñoom bilan ba am na journée yu bari génne nañ ko nee nañu list bi nga xam ne ci wàllu perte humaines ci ñu dee ci wàllu matériel ci wàllu militaire ci wàllu économie ak sociale yi nga xamante ne Israël moom ci jëmu boppam gàll gàll nañ ko ko ki ko gàll muy résistance islamique muy Hamas depuis bi nga xamante ne ni commencé na guerre bi lu lourdu la lu doy waar la waaye dañ ko garder secret ndax maanaam euh, euh, euh, li nga xam ne mooy censure militaire muy maanaam bëgguñu ko génne muy information yi comme di xew rek ci seen ville yi fi mu nekk ni mokk na rumbux rumbux rumbux buñ ko doon bàyyi bu nga xool Gaza xool leen dangay kontaan parce que li ñële di ñam lu ko ëpp tey moom la Hezbollah def ñu koy ñam loolu nag euh, euh, nekk na ci fukk ak ñaari point bi ci jiitu mooy premier bi mooy lu toll ci vingt mille morts am na ci soldaawu wu soldaaru israéliens yi rey nañ ci ñoom vingt mille maanaam euh, maanaam buñ ko dee xool ñaar fukki junni ci ay ñoo xam ne ay soldaarañu rey nañu leen Hamas moo leen rey soit muy ñu régulier soldats réguliers wala réservistes yi wala mercenaires yi mercenaires yi nga xam ne arab yi ñoo leen di indi ñu leen jënd pour ñu ñëw jàppale soldaaru Israël boo dee xool euh, euh, euh, rey nañ ci vingt mille boo ko booleeg ak soldats yi waaye aussi force yi cinquante pour cent ci force blindée yi yoo xamante ne ni yàqal yàq nañ leen waaw mooy mooy char yeeg ak yeneen seen seen euh, véhicule motorisé yeeg ak yu demee noonu donc boo dee xool trente mille personnes yoo aussi yoo xam ne gaañ nañ leen fanweeri junni yoo xam ne gaañ nañ leen ci Israël ñuy nekk ay handicap physique mujj lom lompoñ wala nekk ay ñoo xam ne dañoo mujj seen euh, maanaam naan euh, seeni seeni nag naan siwul seeni seeni nag naan siwul mooy ñu amatul xel mooy manto yi permanant ñoo xam ne dof nañ ci muy euh, euh, euh, maanaam fanweeri junni donc aussi boo xoolee Israël woo na presque plus de trois cent mille soldats de réserve yoo xam ne góor ak jigéen ñoo ci yëpp pour ñu participer ci guerre bi déplacement déplacé na cent cinquante mille colons yoo xamante ne ni ci hôtel yi ak ci ville yi nga xamante ni ñoo nekk ci Israël te loolu yëpp Israël moo koy fay wax bokkul ak yi nga xam ne actuellement nee nañu démb bu may jot trois cent mille colons jóge nañu au nord parce que ñoom ñoo leen ne woon dinañ leen protéger mujj bi ñu gis mbir mi takkarnaase na ñu ne képp koo xam ne yaa ngi nekk au nord na nga daw ñëw waaw surtout ci Kiryat Shimona donc mu nekk lu doy waar donc te eh, eh, eh, Netanyahu moo ne woon loolu mooy ci wàllu guerre ak Hezbollah loolu moom la feeñal donc nee nañu plus de quarante mille missiles ak ay drone euh, euh, euh, wàcce nañ ko ci Israël maanaam Hamas wàcce na ko ci Israël waaw ak euh, euh, moom Hamas ak Liban euh, libane yi ak irakiens yi ak yéménites yi ak syriens yi wàcce nañ ko ci Israël donc mu nekk loo xamante ne lu doy waar nee nañu nag perte Israël yi mu am ci année bi rek ñu ngi ko estimé ci soixante dix milliards de dollars donc gis nga ñu ngi doon wax fële maa ngi doon wax entre soixante quinze mille mille mille mille millions de milliards de dollars parce que am na sax ñoo xam ne loolu la lii si estimation la nekkul loo xamante ne ni euh, euh, lu lu lu euh, chiffre précis la donc gis nga loolu musiba la nga xool aussi plus de soixante mille entreprises tëj na Israël surtout ci wàllu technologie tëj nañu waaw amatul liggéey waaw fi mu nekk ni sax entreprise yooyu plus de euh, euh, quatre-vingt pour cent jàpp quatre-vingt-cinq pour cent toxu nañu dem ñii ñi ngi Dubaï ñi dellu nañu États-Unis dem nañu feet feneen lu mel ni Inde ak yeneen pays yi pour dem installé wu foofu perte revenu wu touriste yi li nga xam ne touriste tourisme def ko doon dugal su euh, nekk nii pare na sept milliards de dollars la woon par année loolu aussi Israël perte na ko hôtel yi ak entreprise yi yi nga ñoom it commencé nañu licencier nit ñi licence yi ngi licencié plus de mille tra des milliers de travailleurs yoo xamante ne ni euh, euh, euh, mënatuñ leen fay seen salaire dàq nañu leen également trente mille manifestations calculer nañ ko maanaam toll manifestation yi ci monde bi pour soutenir Gaza toll na ci trente mille manifestations trente mille manifestations muy fanweeri junni manifestation organiser nañ ko ci monde bi pour contrôle Israël di def comme fii ci Sénégal donc Sénégal aussi gàcce ngaalaama muy ci autorités yi comme ci euh, euh, peuple bi donc euh, transformé nañu Tel Aviv également loo xam ne musula am mu nekk nga xam ne jàppe woon nañ ko moo gën a sûr ci monde bi moo gënoon a sûr sax que Washington Paris ak Berlin ak London tey moo gën a dangereux ci ci monde bi waaw parce que ay statistiques yu toll ni 67 pour cent ci israéliens yi fi mu nekk nii nee ñu sax bëggatuñu dëkk Israël waaw dañu bëgg a dellu fi ñu jóge woon donc kon kay yéen amoon nañu fi may jóge yaa xayti dellu leen foofu mu jeex waaye dangeen ngeen bëgg lii rek di ngeen ñam incha allah donc ci wàllu migration inverse maanaam ñi nga xam ne dañuy bëgg a génnaat ci Israël ñoom ci seen jëmu bopp plus d' un million ak demi maanaam un million cinq cent ci colon yi nga xam ne am nañu. double nationalité ñoom euh, euh, kii lañu naat lañu dañoo ñuul weex bu xawee weex ñu ne bu damaa weex bu ñuulee ñu ne damaa ñuul parce que am naa tupp yi ñoom moom daw nañu dem ah, fii la dëkk yi nag la ñu gën a dem émirat émirat arabe bi mooy li ma doon wax léegi ci Dubaï ak parce que dubay fii dañoo ubbi léegi sax dañ lay jox nationalité boo nekkee boroom xam-xam ngay médecin ngay ingénieur de haut niveau dañ lay ubbil parce que xam nañ ne lii dafay am moo tax ñu bëgg taataan li nga xam ne moom mooy jóge Israël ci ay cerveau bu ko defee ñu mën leen utiliser foofu ci Dubaï moo tax ñu def loolu ñu def donc ak foofu sax am nañ fa quartier boo xam ne spécial boo xam ne ñoom juif yi la te damay ragal li xewoon Palestine loolu xewaat fa nii moo tax ci Grande-Bretagne donc Émirats mooy première destination Grande-Bretagne tegu ci France Allemagne ak États-Unis ak yeneen pays européens yi doog a ñëw moo tax loolu Euh, metti na lool li nga xam ne mooy média israéliens yi nee nañu ñoom seen événement sécuritaire bi gën a difficile ñoom Israël tey ñu ngi koy commencé am non seulement ci fëp mu waaye mais surtout ci Gaza ak fii nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, Hezbollah moo tax télégraphe ne leen ci Iran na ngeen moytu bu ngeen bëggee fayu parce que Iran prouvé capacité bi mu am pour dugg ci seen système de défense aérienne bi nga xam ne moom la ñu jàppoon ne moo gën a performant un monde def fa lim fa def mu nekk bés bu ñu Iran ñëwaatee nag dina nekk sa pour être très très très très dévastatrice loolu euh, euh, The Telegraph nga xam ne journal britannique moo leen ko wax mu ne experts yi seen jëmu bopp ñi ngi liggéey bu baax a baax pour éliminer euh, bu baax a baax a baax Israël te parce que won nañ ne ñoom capable nañu pour maanaam lancer ay missiles yu bare bari bari mu ci kaw euh, euh, Israël donc mu nekk loo xam ne danger la ci euh, ci Israël donc loolu nga xam ne moom télégraphe mu ngi koy wax ci Israël nee na Israël ay intercepteur am système de défense de de missile de yi ah munuñu maanaam lompoñ nañu pour mën a taxawal doole bi nga xam ne moom la Iran yor moo tax experts yi ci seen jëmu bopp dañuy ragal mu am attaque de drone yoo xam ne euh, euh, euh, dina ñëwaat buy Iran di dóor muy wane fay ak faiblesse su potentiel du système de défense bu Israël donc moo tax mu ne lu Israël mën def na def ndànk parce que bu Iran ñëwaatee nee na dina nekk lu grave grave grave waaw parce que Iran moom buy lancer missile missile yi daf koy coordonné ak ñi nga xam ne ñooy waa Hezbollah waa yemen waa Hamas ak irakien yi. te loolu mën nañu sànneendoo ay missile yoo xam ne dana gën a grave ci système de défense aérienne bu Israël te dina provoquer foofu destriction bu massive ci lépp loo xamante ne ni zone résidentielle la wala site stratégique bu vital donc moo tax euh, euh, euh, ñu war a def ndànk def attention ci loolu moo tax ci ARS mu ne ñun israéliens yi ARS journal israélien la ñun war xam ne Iran capable na di xeex guerre bu bu bu longue et destructrice contre Israël maanaam Iran bu ko neexee mën na guerre ay ay weer ay ay lu ëpp loolu ci contre Israël alors que Israël dafa tuuti lompoñ amul doole ci kaw kanamu ci kanamu Iran waaw waaw te et puis sax Israël dafa sonn ci guerre bi donc gis nga même ñoom fi mu nekk bi ñu demee ba gis ne dëgg gaa ngi ni ci ne ñu commencé même ñoom ARS ak ñooñu ñëpp commencé wax moo tax euh, ci euh, benn responsable américain nee na cheikh bu Mossad informé na CIA ci cessez le boo xam ne nee na euh, mën na am mais lu ci mën a nekk y' a pas de problème parce que démb xam ngeen ne kii di Biden wax na ak Netanyahu pendant trente minutes waaye lu ci mën a nekk amul benn problème ñoom ñoo yem ñu ngi leen di xaar de pied ferme bu ñu ñëwee fayu après fa la ñuy awee jeex. mu am ay puissances nouvelles qui vont monter bu ñu faywul dañuy wàcc ci suufit mu pare ñu ak war a daal dina parce que dinañ leen yab dinañ leen gàcceel ku leen yabul woon yab leen force dissuasive yi ñu amoon dafay mujj mel ni coton bu ko defee lépp lu ñu ki woon mu màbb ñi jëloon seen yaakaar yëpp tegoon ko ci ñoom surtout surtout surtout pays arabe yi dinañu lompoñ bu ko defee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jëloon seen lépp wéer ko ci borom bi subhanahu wa taala yàlla dina leen may ndam ci ñi may leen ko parce que mooy li nga xamante ne ni mooy li war la aglibanna ana wa rusuli qaatiluhum yuazibuhum allahu bi aydihim wa yuxzihim na ngeen leen xeex eh, eh, eh, reente leen ak ñoom la wax ngeen toroxal leen ci seen loxo ngeen ngeen ngeen ngeen yuazibu ngeen ngeen chacciyee leen waaw def leen lu metti ci seen loxo ba pare ngeen to toroxal leen donc foofu la ñuy yem ak yéen xanaa aaya bi ci topp ñu ne ma àggale ko wa yansuruhu wa yansurukum alay alayhim wa yashfi sudura qawmin euh, muminin ci suratu tawba mu ne bu ko defee yàlla may leen ndam ci seen kaw waa nag aussi euh, xolu ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy julit ñi sedd guy ci li Hamas di def Hezbollah di ko def Eh, yemen di ko def iraq di ko def iran di ko def syrie di ko def ci kaw israël ak éventuellement ci amérique te sénégalais yi dafa mel ni ñoom sax ñoo ci gën a yey ci kontante waaw ndax mbégte bi ñuy am bu ñu déggee ne jullit ñi am nañu doole asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñu jon topp di ñu ci Mouhalim info international di am mbégtewaat bu baax a baax ba eh, incha allah ba beneen yoon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 bu dee gaaw woote leen gaaw si 33 975 20 55 77. hamdan liman yafalu kulla ma arada bi qawlihi